wàllum euh, politique ak euh, askan euh, bi nga xamante ne ñoom la ñuy naan ñoom lañ fa teewal doyen gis nañ bi ginnaaw bi tentative de suppression bu 16 bi ak HCCT gis nañ ne limogé nañ ñaari président yi nga xamante ne ñoo jiite institution yi muy Abdoulaye Daouda Diallo ak madame Aminata Mbengue Ndiaye lan lañ ci mën a jàngat ci mbir moom. xam nga c'est la prolongation d'une guerre. Mhm. parce que amoon na yéene tas la yéene moo doon tas 16 ak HCCT. Mm-hmm. léegi am na ñu taxaw ne ko doo ko tas donc fi mu toll nii mënutu mënu koo tas. Mm-hmm. loolu lañ njëkk a wax je prends acte loolu Diomaye waxoon ci mm-hmm. communiqué bi je prends acte. dina léegi nag yemul foofu dafa ne yéen Sénégalais député yi ils en contre courant contre votre volonté pour votre volonté. pour wane na daal ñii moom bëgguñu réew mi. toxu mhm. leen léegi nag on va vers des législatives. Mhm. législative dafay laaj moyen. Mhm. léegi nag moyen yooyu ñu yor moom comme que tas ko lu bëggoon mënu koo tas mu ne dinaa fexe ba moyen du du egsi ci ñoom nan lay def. comme que yàlla dogal na man am naa prérogative sañ-sañu nommé président ba. am naa sañ-sañu wàcce ko. Mhm. naa wàcce ñaari président yi. léegi boo leen wàccee qu'est-ce qui va arriver ñooñu ce sont les ordonnateurs de dépenses léegi xaalis pour mu génn foofu problème lay doon parce ñu ko war a génne nekk te nommé woo ñeneen. Mhm. donc ça veut dire que l'institution les deux institutions seront bloquées. Mhm. on va leur ôter le pain de la bouche. léegi seen moyens yi ñu amoon en tant que président du conseil économique et social cinquante million par mois. Mhm. ak sa gars yi seen avantage yi ñu amoon pour leur permettre de véhicules yan ñu yoroon. Mhm. pour mën a doxal seen politique yooyu yëpp donc ça pose léegi nag peut-être ñi nekk administration ñoom du ñu am problème parce que mën nga jóge boo fa nekkee administration ministère nga jóge woon. dañ lay delloo ministère mais ça ce qui sur l'institution sera très bloqué mhm. te dina am ay conséquences sur la marche de ces institutions léegi nag mhm. c'est la bonne guerre politique lañ nekk politique boo ci nekkee aussi tu essaies de mettre tous les atouts de ton côté effectivement waaw lool la rek te yàlla dogal na aussi ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñële ñoo nekk ci institution yi saa ñu ko mënee bloqué il bloque ça loolu la rek parce que on va vers une guerre. Mm-hmm. bon boo sañoon nag boo sew ki ngay guerral du am ay armes. Mm-hmm. armes yi yi yi mu soxla du ko am. Mm-hmm. donc boo ko gé boo fexe ba yenn arme yi mënu cee jot te surtout sunum réew politique c' est la lourdeur de la poche parce que fii politique Sénégal mooy da ngay jënd ordonnance da ngay joxe ndawtal wala ngay ngénteel gars yi walla ngay. bu ñu feebaree nga faj leen. ensuite bu ñu amee mariage yow yaa géré ak yenn problème particulier yi seen doom yi bu ñu fayul école ci yow la ñuy ñëw kooku nag il faut nga am ay moyens bu ñu la otee yenn moyens day gën a compliqué pour yow ko hmm. merci Sadio dafa mel ni euh, li ñu waxoon promesse électorale bokkoon na ci nga xamante ni mooy suppression ñaari institution yi lan lañ ci mën a jàngat. bo euh, li doy wax man euh, je dis que sànq waxoon naa ko déjà time bi nga xam ne saisir nañ ci assemblée boo liiree volo boo xoolee time bi nga xam ne ne saisir nañ ci assemblée nationale pour saisir pour dissoudre euh, ñaari institution damay jàpp ne timing politique la. c'est juste wane peuple ba ni que ni ñi fi nekkoon ba léegi ñoo fi nekk ñoo nekk en majorité donc il faut les dégager tout simplement ça. tout simplement benn stratégie politique la bi nga xam ne ni. Mhm. Euh, ba ñuy saisir assemblée nationale wax naa ko sànq am xam nañ ni am nañ certitude que loi bi du jàll yow mii sax xamoon nga ni loi bi bu demee assemblée nationale du jàll. mais yàlla dimbali na leen ba loi ba ñu koy voté c' était 83 contre 82 man je m' attendais même pas sax ça ñu am 82 yi nga xam ne voté nañ leen. Mhm. beneen bi mooy l'avantage comme sànq wax naa ko avantage bu mu jur man je vois que la coalition Yewwi Askan refait surface euh, dem xaw ma kan moo signé communiqué bi parce que ñoom gën nañ def activité mais dans tous les cas gis nañu coalition bi sa fait surface. Mm-hmm. et gis nañ que ni nii. Euh, Pastef mi nga xam ne ñoo ngi ci régime bi dañoo soxla coalition bi pour mm-hmm. mun a dem parce que élection yu jëpp ay élection yu ouverte la en face ñaa ngi am ki nga xam ne bañ partee régime bi tey yàggul benn mm-hmm. deuxièmement ñu nekk ci régime bi ëpp ñu doole actuellement ñu nekk opposition en terme financière benn mm-hmm. gën même en terme d'organisation tey bennoo à part les frustrations bennoo c'est vrai que bëri na frustration mais bu fekkee bennoo booloo na boole seen doole Pastef mii nii demee nii donc en terme d' organisation. Mhm. Pastef ëpp leen dool beneen bi mooy mine terrain bi mine terrain bi bennoo ñoom de pratiqué nañ état 12 ans pratiqué nañ ko état xam nañ ci kii Pastef ñoo ngi dooraa arrivé am nañu ci bëri ñoo xam ne dañ nekk si jàng ba léegi. nu ñuy defee yenn yenn kii boo donc donc yooyu yëpp c' est des aspirations yi nga xam ne ni. Mhm. mun nañ tee tenir compte mais aspiration bi ci gën a am solo mooy euh, mooy popularité bi nga xam ne tey régime bi am na. grâce à président Ousmane Sonko loolu a loolu kenn du ci laam-laame Ousmane Sonko popularité bi malgré que am na kii mais mooy fii ba léegi. Mhm. donc euh, di sot. premier ministre Ousmane Sonko yow boo ko Pastef. waaw ah, waaw baax <laughs> loolu nga dëgg wax nga dëgg alors euh, non je veux dire président Pastef donc laa bëgg a parce moom ba muy politique il, il distingué entre le premier ministre. et le président du parti PASTEF récemment ba muy recevoir ñenn politicien loolu nee na il est reçu en, en qualité du président du parti PASTEF waaw ah, donc may mun a pour revenir un peu mhm. ci li nga wax euh, dissolution bi ndax am na jeexital mhm. effectivement bu fekkee réussir na am na jeexital te dans tous les cas gars comme déjà la machine est déjà enclenchée assemblée bi dañ koy tas. quelques jours après yii dañ koy tas te déjà comme ni ko doyen waxee sànq am na pôle yi nga xam ne ni déjà ñu jàpp nañ ni yooyu koy remplacer donc institution yi dinañ ko tas. nañ créer seen pôle yi après dinañ demaat beneen élection bi nga xam ne ni boobu nag on verra. <laughs> merci Sadio ba tey ñu ngi continuer ak euh, seen émission bët set doyen euh, dañuy des ba tey foofu ca assemblée nationale ndax comme ni nga ko waxee woon sànq yaa ngi ko doon junju euh, examen en session extraordinaire de trois projets yi nga fi limoon sànq lan la mën a lan la mën a jur lan changement la mën a indil suñu askan wi ak si yenn institution yi. projet yi. da bokk ci politique état bi. Mhm. boo xoolee gestion de loolu dañ ko waroon def depuis deux mille vingt trois mais malheureusement jotuñu ko woon def. ban la ci. mooy exercice deux mille vingt deux. waaw waaw waaw waaw dañ ko waroon def depuis deux mais jotuñu ko def. Hmm. beneen bi mooy coopération transfrontalière loolu wax dëgg yàlla bu baax parce que dañoo nekk entouré par un cercle de feu. Hmm. boo xoolee Guinée. Hmm. Mali Mauritanie. Guinée-Bissau Gambie. dëkk yooyu vraiment. Mhm. par rapport ak stabilité bi ñu am ñooñu des na ko donc c' de des pays qui ont des problèmes donc boo bokk ñoom frontière baax na ngay. gën a renforcer sa coopération donc je crois que projet de loi bi beneen mooy commission nationale des droits de l'homme mhm. droit de l'homme aussi dafa am solo ci sunum réew mhm. donc buñ ko mënee ñoñal du wàññi dara léegi DPG bi moo ci des DPG bi nag elle n'a pas de chance de prospérer du am. <laughs> en tout cas. du ma wax du am waaye ñàkk am la gën a jege ka am. non du am doyen. doyen fan nga teg li nga wax. li ni mel fan nga ko teg parce que acte yi ñu posé depuis lors depuis lors lan lan lañ njëkk a def dañoo ñëw conseil des ministre deuxième conseil de ministres Ousmane Sonko ne la bon léegi na gars yi préparé. département ministère yëpp. nañ ko def waaw. Mhm. ñu dem ba jëmm jamono. mu ne moom pare na pour def kii ñu dem ba jëmmi jamono gi Mari Sagna génn ne ko yow waroo dem. bul dem bul dem. bul dem parce que réglement bi dinañ ko kii sax te réglement boobu ñoom ci lañ doon déposer motion de censure règlement boobu ci la ñuy fayeeku seen seen seen i avantage yëpp seeni seen lépp ñu ngi ko ci fayeeku ci réglement bu bon boobu loolu moom garaaw léegi ñu dem ñu ne nañ na joxe condition pour ñu. de def kii buñ ko deful le 15 juillet moom du dem li ci gën a garaaw mooy président Diomaye ci boppam. Mhm. moo taxaw nañu bon ma wax naa Ousmane sonk mu surseoir à sa décision. assemblée populaire bi ko waaw léegi mu man bu ñu dinaa waxtaan a gars yi pour ñu régler loolu. Mhm. ñu corriger réglement intérieur bi. léegi nag mu ne moom moom sax bu ko defee foofu mun na ko defee feneen sax te foofu ëpp qualité non c'est extrêmement grave yow premier ministre ngay fragiliser président de la République ngay fragiliser amul fenn fu ñu wax ci constitution bi mën nañ fa def déclaration de politique général en dehors de l'Assemblée na amul fenn foo ko def mu ne xawma nañ koy tuddee de mais du doon déclaration de politique une déclaration de politique ça se fait devant l'Assemblée nationale donc ça veut dire que ils dans cette disposition loolu yëpp. ay manœuvre la woon ñu dem ba ci cëppaandaw ga yow mi mën a convoquer session extraordinaire. pour ñu se pour ñu kii nu mu tuddati pour ñu supprimer ay institutions. foo mën nga fa dugal. déclaration de politique générale. léegi ñu dem ba ñu ne roi bi promulgué ko heureusement bi ministre de la justice. foofu la nit ñi xam ne loi bi pro promulgué léegi mënatuñu lay lenn pour bañ a def déclaration de politique la mhm. léegi nag ñu dugal ko ci session bi te niñ ko ci dugalee sax moo la koy won ci dernier en quatrième position. le temps matériel. bi laaj trois projets de ak temps matériel bi laaj pour informer les les kii nu mu tuddati les les députés. Mhm. donc yooyu yëpp ça pose problème donc ça veut dire que. pour ñu jëm ci DPG ma yeneen yi du am la mais pour ñu jëm ci DPG dina jafe. Mhm. te ñoom premier ministre xamal nañu le 12 député yi dina tal leneen lu dul kii donc ça veut que mhm. c' est des stratégies yu tegoon rek pour pour bañ a def DPG. Mhm. donc loolu mooy la vérité. léegi uh-huh. parce que pour nga def DPG aussi il faut avoir quelque chose un contenu. te ban contenu la liggéey fi mu toll seen contenu mooy PSE. PSE te ñoom dañ ko mës a ŋàññ projet bi waxoon nañu décembre ça sera prêt septembre mm-hmm. septembre ñëw na waxatuñu waxu prêt kenn kenn xamul kañ lay kañ lay pare donc tout ça c'est des problèmes ensuite tu vas vers des une une assemblée nationale hostile mm-hmm. donc yooyu yëpp boo ko dajaloo donc c'était yàlla dimbali na leen aussi la DPG amul dele bu ñu ko fixé donc heure bu leen neex mën nañ ko def donc tout ça c' est des stratégies la. mais ce qui est la daal. waa Benno ñoom ils sont dans une posture de montrer à la face du monde ñii li ñuy wax yëpp du na mooy ñàkk bañ a def kii bi ñoom tamit ils se défendent nee nañ gars yi dañu violer constitution mais en tout cas le Sénégalais les observe. Okay. merci euh, beaucoup Sadio par rapport ak stratégie yi. doyen man euh, doyen lu mu wax man je suis un peu euh, réticent par rapport ak yenn propos. Mm-hmm. parce d' abord pour concernant le projet. Mm-hmm. man jàpp na du question de projet moo tax ñu dem assemblée nationale. Mm-hmm. parce que Ousmane Sonko Bassirou Diomaye ak ñi ñuy àndal yëpp. man jàpp naa ne bu dee projet réglé dem nañ assemblée nationale. bu dee document bu ñuy défendre la. Ah, ñoom ñoo ne la projet. non bu dee projet doyen très sérieusement bu dee projet réglé. Mhm. jàpp naa ne dem nañ assemblée nationale. ndax lan foo ko parce que déjà ñoom lu ñu liggéey ñoom wax nañ ne projet bi pare na bu yàgg mhm. Ousmane Sonko déclaration politique générale pare na bu yàgg. Mhm. mais li tax demuñu assemblée nationale mooy euh, xam jël palais rek nekkul jël réew mi. assemblée nationale dafa am cër bu rëy bu muy dox ci administration sénégalaise euh, maa moo ngi koy wax donc li loi ñu war a kii yëpp assemblée nationale mooy déterminer mooy valider politique de la nation bi nga xam ne mu nga war a jox doxal déclaration de politique générale ça veut dire que yow da ngay am politique bi nga xam ne ni sa magistrat magistère bi ñu la fal nga ne nii laa bëgg a doxalee Sénégal nga indi ko parlementaire yi ñu valider la ko loolooy déclaration de politique générale te assemblée nationale moo lay jox feu ci yenn yenn yenn loi yi nga xam ne ni ba nga koo doxal. Mm-hmm. mooy wax loi par exemple ak ñu ñu dëkkandoo la dëkk yi nga xam ne ni ñoo wër Sénégal. mooy wax loi ci les droits de l'homme ñooy mm-hmm. wax loi ci leneen ak leneen loolu yëpp assemblée nationale moo koy voté keroo wax naa ko fi même président même boo demee ba toll ci déclaration de guerre. Mm-hmm. assemblée nationale moo koy voté chef budget assemblée nationale moo la koy validel donc tey yow boo amee benn assemblée nationale bi nga xam ne assemblée bu hostile la. munoo doxal. bu ñu dem am na réew yi nga xam ne ni sax da ngay dem ba benn moment le président de la république day perte contrôle lu réew mi boo perte assemblée nationale parce que dans ce cas cohabitation lañ lay imposer. Mm-hmm. da ngay obligé sa premier ministre da nga koy wàccee nga teg benn premier ministre France li fa xew actuellement. Mm-hmm. xool le Macron il est obligé wàccee mm-hmm. premier ministre am waaye parce que dafa am benn cohabitation dañ dem élection euh, opposition bi. def benn ballottage bi nga xam ne ni président amul majorité. mu obligé wàccee premier ministre am andi beneen premier ministre bi nga xam ne tey moo lay permettre nga gouverner mais doo gouverner dans ce cas cohabitation lay nekk parce que ngay andi kii andi ngeen ngeen dem. Jomaay mooy président de la République du Sénégal. tey jii am na benn benn benn doxalin bi nga xam ne bu ñu demee assemblée nationale. élection assemblée euh, opposition bi gagné dañ dañ koy imposer cohabitation déjà hmm. système bi ñu nekk nii système de cohabitation la à l'instant nii parce que euh, assemblée bi comme tasaguñu ko hmm. Benno Bokk Yaakaar moo fa ëpp doole donc yow yow am ana ban projet nga mun a def bi nga xam ne ne yow sa si projet bi la bokk nga bëgg koo jàllale te nga yóbbu ko assemblée ñu valider ko même budget état boo ko fa yóbbee dañ koy rejeter donc si cohabitation boobu lañ nekk hmm. ñoom seen seen xeex kañ li ma jàpp projet bi pare na wula parewul seen xeex mooy nañ am majorité assemblée nationale parce que yow am na député yi nga xam ne ay jamono ñuy naan diw moo a fi andi lu mu andi dama koy votel Sénégal lañ nekk yow boo amee majorité assemblée nationale mu nga tëdd si say laurier nga xam ne ni lépp li nga xam ne muy projet de loi lépp li nga xam ne ni proposition de loi la jóge na fii wala bu ñëwee day jàll par force. Mm-hmm. mais système bii ni ñu nekk nii système bi ñu nekk nii. tant que amuñu majorité cohabitation lañ leen di imposer te cohabitation baaxul ci nguur. Sadio waaw léegi yow. donc retard DPG bi donc mën nañu nekk fa fële wundoo. non DPG yow yaa ne pare na. lan moo tere présenté ko. non bu demee <laughs> gis nañ fii. Uh-huh. Uh-huh. xam nga gis nga boo nekkee boo jëlee pouvoir. Hmm. da am benn état d'esprit. gis nañ fi Wade en 2000. Hmm. Wade bi mu ñëwee jël pouvoir. Hmm. lan la def te waxtaan ñoom. Moustapha Niasse a présenté une DPG devant une assemblée nationale hostile am yoon majorité te def na fa DPG te coow jibul donc yooyu yëpp ya yow yaay ko yaay am stratégie intelligence politique boo xam ne dina la permettre nga wax ne mais yow bu dee fu ñu la fekk yaa ngi menacé yaa ngi tiitalaate mais ñoom tamit ils se mettent dans dans dans la peau de d'une kii. mais euh, doyen te euh, yow euh, yàgg nga ñu wax ne yow. PSE gëmoo ko donc mënoo ko défendre. te PSE moo fi nekk yow yaa ngi bëgg ñu wax ne lii gëmoo ko lii baaxul te moom ngay doxal. parce que PSE c'est kii dem Macky sal moom ngay doxal fii ba deux mille fin deux mille vingt quatre yow gëmoo loolu yàq nga ko critiqué mais sëñ bi nag doom wëlbatiku ñoom bëgg a défendre loolu quand non doy man li ma. booy booy <laughs> defaan kay da nga indi lu bees ne ñu lii laa jaar lii mooy sama vision. non man jàpp naa ni gars yi am nañ am jàpp naa ni am nañ. gis nga ñoo la ne pareeguñu. waaye Sadio nag yow tamit ñoom mag yu taxaw ne la ñu nga ne pareeguñu. non mais xamee ah, ah, projet bi la ñu wax pareegul mais. Ah, déclaration mooy vision bi nag. non déclaration. générale doyen déclaration politique mooy lan la. fii laa commencé fii laa jëm. te ñoom li ñu gëm mooy projet boobu donc projet boobu nekkul ak seen loxo pareegul wax nañ na ko Sadio yow nga bëgg taxaw fii bëgg woon ne ne pare pareeguñu ñoom ñoo la ko wax kay. doyen li ma li ma bëgg a wax foofu dama ne. assemblée nationale bi fi nekk. le président Bassirou Diomaye même bu demee si yàlla. mu jox ko décret divine bi nga xam ne ne amul lu ñu ciy corriger bu ko yóbbee assemblée bi du jàll. parce que amuñu majorité parce que ñoom lu ñu déjà nu ñu opposé la. dañoo xeex doorante xasante waxante lu ñaaw ba am benn position hostile bi am de part et d'autre am na ñoo xam ne seen position politique dem na ba jur ay position d'ennemi maanaam bañante am na fi c'est dund nañ épisode yi nga xam ne ni. moo tax doyen bu naan dialogue ñu war a toog gaw mën a ñaar. c'est-à-dire doyen épisode bu ñu jógee. yàlla xam nañ dem nañ ba benn benn moment sénégalais yi dañoo dem ba da ngay far Pastef kii far bennoo ñu bañante.

motion de censure yooyu yëpp mooy fa parce que boo déclaré euh, euh, règlement intérieur dafa ne boo déclaré maanaam boo ñëwee gouvernement bu ñëwee def déclaration général déclaration de politique mais assemblée général mun na ne lii convaincre ma bu ne lii convaincre ma si saa si loi jox na ko possibilité mu dugal motion de censure ne gouvernement bi lu muy fu muy yóbbu Sénégal baaxul nañ ko nañ ko bloqué léegi risque boobu laa la wax nii nii ñoom duñ ko jël duñ jël risque boobu tant que tasuñu assemblée nationale parce que tamit politique. neex na nga gagné pale mais bu fekkee da nga gagné palais ba pare yow ki nga doon xeexal sa ennemi ñu ñu ñu ñu ñu woñ sa loxo ne la par force yaa moom moom yenay toog dos finalement li nga doon xeex yëpp c'est du zéro laajal Macron fi mu ne nii bon ces visions mënatu ko imposer parce que les constitutions dafa am benn rôle boo xam te da ko jox président de la république mu am rôle boo xam te da koo jox ci premier ministre Sénégal régime bi ñu nekk le président de la république. mooy mooy chef suprême de la euh, chef suprême des armées mooy mooy gardien de la constitution mais le premier ministre c'est le chef du gouvernement chef du gouvernement moom mooy dérouler le euh, mooy dérouler politique gouvernement bi président de la république da koy jox instruction ay orientation moom mu moom mu déroulé ko léegi bu fekkee yow da nga dem ba ki nga xam ne supposons que euh, Bassirou Diomaye fay am premier ministre comme Abdoul Mbow wala ki nga xam ne ni bokk par exemple Abdoul Mbow wala ki nga xam ne APR la bokk mais après ñoom nan lañ war a toog gouverner nan la ñu war a toog def seen trac euh, nga xam ne def nañ ko nan la ñu war a toog def yeneen yeneen yooyu yëpp c'est ak tenir compte dans tous les cas assemblée nationale bi parti Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition bi nga xam ne moo indi Diomaye dinañ xeex te ñii bu demee ni assemblée nationale dootuñu ko defat. merci la ñu xaar. merci Sadio suñu dernier bi ñu a